conduire le Premier ministre. Absolument. laaj may na ko falaat un autre gouvernement. absolument mais conséquence bi ji loolu au plan politique. ñëwantal ay ndaw lañu fal suñu réussiré dañuy jox chance yeneen jeunes yi. dafa mhm. Sénégal yi japp ne que ndeka ndaw ko leen jox ñu doxal. Mhm. waaye day noppal mag ñi. dafa gars yi parce que ku ne ci ñu naa ah, sa kër boo soobee sa doom teel a teg teel a mën noppal la. Mhm. da nga may ne toog sa piliaan rek ñu lay indi ngay consommer parce que neexul ci ma nga dem ba nek ma ku ne di liggéey ba kër gi dox mag ñi dañ gënoon nappal mo ñi gis ne ndaw ñu tay mën nañu te mat nañu bien sûr te ñi comme ñu lañu jëgë expérimenté suñu réussiré sen magistère da fay tax Sénégal léegi bayyi nak gestion rue mi ak ndaw ñi su boobaa ñoom aadama ñeneen gars yoo ñu di liggéey di ñafé wane ni mën nañ ko yeen grand dama nga tok noppalu ko pay dama nga tok noppalu ko ñi mais malheureusement bu ñu échoué tamit dañaan yi yéen a def ñu matuñ dara. c'est vrai c'est vrai les balles ñu indiwaat ñu indiwaat maa ngi rek. c'est vrai donc moi je pense que très honnêtement motion bi jallam sax mo intérêt Sénégal en réalité. Hmm. dana xam nga il n'est jamais trop tard pour se rectifier. Hmm. Sénégal dafa dégg dafa metti ndax moom gars yi moom boo déggee léegi ku wax léegi rek dañ arrangé wu ñu saaga la ci loolu ci loolu c'est dangereux. bien sûr bien sûr. parce que aussi mënuñu li nga moom yow kese ba ko yoree kenn laaju la ci dara. Mmh. Ousmane Sonko ak Diomaye seen coalition. Mm. nekk seen Pastef la ñuy def mu neex mu naqari Adama amu ci kàddu. Mm-hmm. mun na que li ngay def député yi mënuñu fa ñu def doxalee leen ni seen parti. Mm-hmm. waaye buñ la joxee nag réew mi nga xam ñëpp a ko ñi la voté ko bokk. sabaa mm-hmm. dañuy am doole ñu ne eh lii su jàllee dara tax gars yi toogaat. d'accord li yi est lii mooy piste bi. am na réew yoo xam ne sax ay ay ay ay tendance interne ay guerre fratricide mais en un moment l'histoire

des années 4 ans 5 ans peut-être 3 ans au minimum. Mhm. Sénégal mi ngi nek ci aw coow. Tay suñu borom may na Sénégal yi wul nañ ba jaay jaay leen projet bi waaye lu mu cher cher jënd nañ ko ba jox ñu réew mi. Mhm. li ñu war ñun mooy fexe ni ñuy gouverner ba def ay résultats ba ñi nga xam ne dee nañ ndax ñun. Mhm. bañ ko rëcc fee ñu toog. d' accord d' accord merci beaucoup monsieur Mbaye Ada damay dellusiwaat si yow tuuti euh, motion bi bu jàllee tey par exemple ban impact la war a mën a lay am ci euh, gouvernement wu euh, Diomaye bi. dina tax Ousmane Sonko dellusiwaat xelam xam nekkat nit su ko même su ko falaatul dina tax mu nekkaat nit. quel soit alpha quel que soit alpha day tax mu nekkaat nit. Mhm. parce que fi ni pour moom demi jëla <laughs> non c'est une vérité dina tax mu nekkaat nit xam non affaire bi ndekkee c'est pas ça parce que la gestion d'un pays aussi il faut avoir la tête sur les épaules Il yaakaar ni tu es supérieur à tous mhm. da ngay jël sa bopp nga teg ko fii xam doomu aadama nga da ngay juum te am na ñeneen ñoo xamante ne am nañ xam-xam ci réew mi mën nañ la besal ay ndëng sërëx ba nga dem teer mm-hmm. nga dellu siwaat nag defaraat parce que su dellu siwaatee su motion de censure amee suñ ko falaatee du taxawaay bii mu am dootu ko amaat les gouver les membres du taxawaay bii ñu am dootu ko amaat arrogance bii ñu nekkee doot day jeex mm-hmm. donc motion de censure bi dafa war a jàll pour régler une question importante pour le Sénégal. Mhm. parce que parce que les 83 députés de Benno Bokk sont ensemble hein. ensemble ils ne sont pas séparés ils sont ensemble. nous défendons nous y ñuy les on a dissous on a supprimé le Benno Bokk en tant que coalition politique mais coalition parlementaire existe suñ ko defee ba c'est pas mhm. continuer su continuer ba pare nit ki dina soppi taxawaay parce que situation bii ñu au Sénégal xam nga lu ko andi. Mm. l'injonction que le PM avait donnée à l'Assemblée nationale. le débat d'orientation, loi de finances rectificative, les ministères, ils tâtonnent, diar pour dem. Mon temps, nous avons dit Sénégal. Parce que le ministère de la culture, budget ministère de la culture de la jeunesse de sangam et du sport mhm. budget ministère des sports naka dem ba ministère des sports dem loi de finances rectificative andi mhm. def mais ya ni tu un demi-dieu ba taxawee sa maa ngi koy xool muy def lu ko neex mais dina xam ni li mu yor maa ko jox jib na. mais Adama du dëgg mm-hmm. coow li ñuy wax bari na parce que démb tàng na boo lool bëri primature. Mm-hmm. ba benn am na ministre bu bëggoon démissionné démb. Mm-hmm. démb am na ministre bu bëggoon démissionné. ban ministre la na ministre bu bëggoon démissionné. waaw ah, wax ñu ko démb. Birame Souleye Diop.

n'arrange pas le président de la République parce que nak, nit ñi ñi ngi naan moom ak président de l'Assemblée nationale réeroo ñu parce que tamit élégance moy moné soy def yenn ni nga waxtan ak le président de la République le président de l'Assemblée nationale si si jamais si jamais euh, euh, euh, ñu ñu ñu faire démissionner le premier ministre et que le président tegaatu ko tu place premier ministre am lan la mëna a jur entre ñom ñaar vu que voilà. C'est une seen c'est une humiliation pour lui et pourtant nak, mo gënon ci mom mu baña a affiché wu dem bir primat présidence yor fa responsabilité diriger liste bi pour les élections législatives pour aller à l'Assemblée nationale ku koy conseillé loolu nga koy conseiller. Mm-hmm. Mais ça confirmer encore une fois les propos de ceux qui disent que euh, le régime en place, nous sommes opposés, nous sommes opposés. Mais, c'est mais, mais, c'est c'est bire dama manière Il y a des ministres qui ne se parlent pas depuis 10 jours. parce que c'est normal cest le ministre des finances et du budget qui gère le budget mais si on est dit budget pour ce ministère mais comment il doit faire pour te donner cet argent là parce a une loi de finances justificative mais Cheikh Diba dama ko yërëm mais dama ko hmm. c'est un cadre compétent mais y beaucoup a parce qu'il n'y a pas de loi de finances rectificative. les ministères ils veulent faire leur projet leur programme mais attends ils risquent d'épuiser le budget d'un seul ministère parce que nous nous tous jël ministères ministères mais comment il va faire parce qu'il n'a pas de loi de finances et il ne voudrait pas violer les textes parce que nous parce que. Quand le président va gérer par décret en une situation de crise article 52 de la constitution faut que le président war gérer par ordonnance mais nous ne sommes pas dans une situation de crise Warun Warun mën gérer par ordonnance Warun ne gérer budget bi côté et le président ne le fait pas maintenant cette situation là Ken Moko andi Ken, c'est le premier ministre parce qu'il a refusé il a donné injonction au à l'Assemblée nationale boo xamante nag une séparation des pouvoirs mm-hmm institution la bo xamante ni dafa am indépendance daf ko jël nag ba mu jëlé indépendance am il faut mu woné ni jël na indépendance am so len jamee baram ñu won la ni nii lay taxawé et loolu mënoon na ñak ci Sénégal gi bi nga xamni dañu def élection présidentielle waji ji taw bi taw moy jamm ñew na ci réew mi parce que suñu gañewuloon suñu gañewuloon Sénégal heure bi duñu tok fi di def plateau le pays ce pays restera sera ingouvernable parce que gars yi duñ ko gëm dañuy japp ni dañoo def li élection yi dañoo def li élection yi dañoo def li élection yi donc pour te dire que voici la situation qui prévaut dans ce pays là. Mm-hmm. te li nak du dara lu dul tële. Mm-hmm. mën incompétence ak tek sa bop un demi-dieu. tu se tu te crois tout permis tu te crois tout parce que seigne Goundou loolu la wax ah. sëñ loolu la wax sëriñam maa ngi ko fal maa ko xool koy xool muy def lu ko neex. Mm-hmm. mais di léegi mu jeex. et je dis aux léegi mu jeex am na kilifa gu ma